bu leen topp seen i wax ndax ñun xam nañ ni attanuñu ñoom opposition keroog bu ñu demee commissariat dégg naa policiers yi grenade bi benn grenade lañu jël xaaj ko ñeent jël ci benn sànni rek ñoom ñëpp a soj kon attanuñu ko bu leen <laughs> jàmbaar ngeen yéen a mën yéen ëpp doole kon soxla nañ seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp mënuñoo nekk du ñëpp a mën a xëy rek c'est-à-dire publique Sénégal ba mu daj boo moytul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy mais loolu taxuloon ñuy xeex ngeen baal ma léeg-léeg ñu ne ma ah am na ñuy organiser wu de nee nañu voilà seen i famille sax dañ leen xas ne leen yéen a fi newoon di xeex te fàtte nañ leen déedéet déedéet ba ñuy jóg di xeexi kenn ci ñun amuloon yaqin ni dinañu jël nguur nañ jël pouvoir bi kenn te ñun ñooy àndoon xeex ngir des principes et des valeurs tey bu ñu yàlla joxee réew mi ñun ñooy ànd liggéey liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee te it la tax sénégalais jéppi ñeneen ñi war nañu moytu mu dal ñu kon saa suñuy tànn dinañu seet ndax sart yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne suñ la dénkee nga bañ ñoo gàcceel ndax moo xam leen ko de kuñ fi dénk mënoo dañ lay wàcce waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jëm kon ku ñuy dénk rek bëgg nañ mu leer ni lañ lay dénk mën nga ko attan nga ko te am nga njub gi pour yor ko yorin bu gën a rafet ñi ñuy dénk it dinañ soxla ay collaborateur mais ci ñi ci ñi fi nekk lañu koy jëriñee waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyée ñëpp génn nañu macha allah waaye dañ naan Sénégal départ la amul arrivé weer wi di ñëw. bu doon fukk génnoon bi pa dañoo bëgg junni génn il faut ñu inscrire suñu action dans la constance et dans la durée ak nu mu yàgg yàgg yàgg gis naa ay image yoo xam ne xam naa ni ñu ngi fii ci biir ñi doon dugg ci biir caniveau yi di génne pneu loolu amul lu ko mën a lu ko mën a fay ci projet bi bu leen jàpp ni fii am na kuy nguuru de ma ma wax leen ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bës ñetti waxtu la nelaw ci bës bi man saa su xëyee yàgg naa leen wax ni politik amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci lu ma musa am ci salaire delloo naa ko askan wi te noonu laa koy defaate nii soxlawuñ ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ñu ma duggee ci suñu oto motaar jiitu ñaari oto ne ci benn oto ne ci kanam benn ne ci man su may xool ci vitrine bi maa ngi xool sénégalais yi maa ngi naan lan laay layoog ñii ci kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog ñii kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na lu ne ci moom loo xam ne dañ ko donn wala dañu cee mooñaale ci niñ doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci ñun nañu dellu si la ñu nekkoon bi ñuy ne opposition bi nit ñi di génn di xeex amul kenn ku ñu jox post wala dërëm wala ñu digla waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dénkuñu nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala seet ma wala woowuñu ma walla walla walla est-ce que loolu di ngeen ko def yéen kon l'action citoyenne est le fondement et la base de la réussite de notre projet.